bu gàtt. monsieur demee bàyyi géwél yi bi ma nuyu. fooy demee nuyu le ministre Matar Ba suñu mag suñu xarit suñu wóllëre yàlla boole ñu ci lu ëpp ñaar fukki at. ci ñaar fukki at yooyu yëpp nag yàlla suturaal ñu lépp rafet. lépp tege ci cofeel ci soppante mais également ci ubbeeku ak ouverture d'esprit ak générosité ministre Matar ndax nee naa ko ay tofa lañu ay tofa mooy ñu toppante moom suñu mag la ñun ay tofa lañu te tofa nag ci ki ne ci kanamam rek lay xool Matar suñu mag la moo ñu mas a jiitu ci lépp te fi mu mas a teg tànkam rek lañu mas a rêvé teg fa suñu tànk dans le monde sportif ba tey yàlla su ci mbaaxu suñu borom ak confiance président la son excellence Macky Sall mu toftal ma ci ministère bi Matar di dem may ñëw kon na ma ko doon xoolee démb ci mouvement sportif bi ci na mu doon doxale noonu laa koy tegewaat bët ci na mu doon doxale ma topp ci ay tànkam Matar demul Matar moo fi nekk ndax mataar mooy man man maay Matar ba waaye waaye ñuy wax waaye ñu na kon monsieur ministre sant la gërëm ndax yàlla dogal na ci rafetaayu ànd boobu ci ñaar fukki at ci monde sportif yàlla suturaal na ma bi ma ñëwee ci gouvernement bi wax naa ni bokk nga ci ministre yi nga xam ni dañuy dalal gan. dégg naa dañuy dalal xel. waaye moom. ñëw nañu. fekk si leen ci gouvernement bi. mais bokk nga muy man ak samay morom ñoo xam ni dalal nga ñu ci jàmm dalal nga suñu xel conseil des ministre balaa président ñëw di waxtaan ak ñun di nga ñu dalal di nga ñu conseiller sax di nga ñu wan ouverture ba suñu xel daal générosité boobu dafa inne ci yow te war nga ko sànq ci say kàddu mooy yàlla dafa la def nga nekk nit ku baax kon macha allah xamal ni yow kon mënoo am lu bon d'autant plus que yow njabootu président la République rakkam nga mu am ci yow kóolute am ci yow yaakaar moo tax ma ni man seen diggante du ma ndax dama ko xam dund ba tax na ko bi ma nuyoo secrétaire général ak euh, directeur yeeg chef de service yëpp yu ministère nuyu également président du comité olympique sportif national suñu mag suñu xarit le ministre Ibrahima Wade mm-hmm. wax ci turu président Ndiaye yàlla suturaal ma Ibrahima Wade président Idriss Seck dénkoon ma ko 2002 ba 2009 man maa doon adjoint à la mairie de Thiès chargé de la coopération internationale moo tax sama voyage Japon États-Unis France partout dans le monde ci loxo Ibrahima Wade la jaar tey mu nekk président olymp comité olympique ñu bokk ci suñ Thiès moo yàgg nekk sama mag kon man li ma war a sant yàlla dafa bëri. donc di nuyu di di nuyu président fédération yi ak groupement sportif yëpp di nuyu également tous les acteurs du monde sportif sénégalais mais également nuyu les journalistes nuyu la presse sportive mais également képp ku fi teew nga jóge Fatick nga jóge Thiès nga jóge Dakar nga jóge foo mënta jóge ci Sénégal mais également ñi ñuy déglu sénégalais yi may nuyu ñëpp di sant di gërëm bi ñu sante suñu borom bu baax a baax a baax julli ci yonentam bu tedd bi ñaanal suñu wayjur yi nga xam ne ñooñu jiitu pour yàlla yàlla yeesal yërmande seen kaw ñuy ñaan suñu borom yaakaar bi président la république am ci ñun ba dénkuñu ñu ministère bi nga xam ni tey mën naa ni moom lañ gën a teg bët ci ministère yi moom la sénégalais yi bokk ci ministère yi ñu gën a am yaakaar parce que Sénégal macha allah yàlla dafa def mu nekk un peuple de sportif peuple boo xam dañu bëgg sport mais également dañu am dañu nekk peuple bu bëgg lu baax ba tax na tey li nga xam ne yàlla suturaale na ko le ministre Matar Ba ci loxoom ñu egg foo xam ni ñun ñëpp dañ ko doon rêvé doon ko doon gént di ko ñaan suñu boroom yàlla jaarale ko ci moom muy la coupe d'Afrique de nations dama ni kon loolu laay ñaan suñu boroom barke boobu Matar yàlla na dal sama kaw. amiin donc yàlla suturaal na la ba loolu jaar ci sa générosité sa bu rafet mais nga xam ni nag su Matar ñemee su mat su sport sénégalais excès fii yàlla ak moom la muy le la République son excellence Macky ko ci yaakaar bi mu am ci man. ba dénk ma département bii nga xam ne mooy le ministère des sports yaakaar la may ñaan suñu borom yaakaar boobu yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla mottali yàlla nañ ci yàlla defal sutura ba lim ci séntu yëpp mu am ko ba am lu weesu njortam loolu nag dama ciy tàllal loxo sama mag sama xarit sama grand frère le ministre Matar Ba ndax expérience am engagement taxawaayam mais également lépp li nga xam ni capitalise na comme expérience mu bokk ak man moo tax ma ne ko yow yow yaay nekk incha allahu rabbi par rapport ak fi ñu jëm muy échéance yi ne suñu kanam te ñun ñëpp suñu xel ne ci muy coupe du monde Qatar deux Matar Ba ñu ngi koy def invité d'honneur de la délégation sénégalaise pour Qatar 2022. Matar Ba da nga mais nee naa ko it dinaa ko ñaan même match Sénégal bii di am samedi prochain ci Orléans. mu jiite délégation bi dem représenté ñu fa dalal xale yi tàggatoo ak ñoom waxtaan ak ñoom ak istax bi yëpp ndax defe naa loolu aussi mérité na ba tax na kon monsieur le ministre c'est le jeune frère qui vous parle c'est le jeune frère qui vous supplée ici c'est le jeune frère qui vous remplace mais le jeune frère se retrouve en vous man damay gis sama bopp ci yow te yow ni nga waxee danga am yaakaar ci man xalaat ni li ne ci yow mu ngi ci man te loolu laay ñaan suñu borom loolu yàlla na ko yàlla mottali may dalal xel yëpp di dalal ñëpp di wax ni monsieur le ministre loo loo fi tegoon comme dispositif xamal ni virgule du ci changé dërëm du ci changé eh. benn changement du ci am loolu lañ koy àndee encore comme nañ ko doon defee ensemble en équipe de manière solidaire dem jëli ndam li comme ni ko président la bëgg daanaka kon ñu ngi dalal ñëpp di sant ñëpp di wax ni également li nga xam ni mooy fédération yi ñoom ñëpp na seen xel daal na doon doxale rek donc dinañ nekk ministre sport yëpp dinañ nekk également supporter u discipline yëpp ñu nañ ko àndandoo ensemble de manière solidaire yàlla sutural nañu wax naa ko sànq nous sommes peuple boo xam dañu bëgg sport surtout jeunesse bi bëgg nañ sport te ñu koy pratiquer mais également xam naa sa ndëgër laay ndax yàlla nag suturaal na ma pendant vingt deux mois nekk naa conseil des ministres ak yow di suivre yenn saa yi sax dama la doon yërëm ndax mën naa ni pression bi nga xam ni le premier supporter des Lions le premier supporter le premier sportif sénégalais muy président de la république doon na ko teg sa kaw pour ndam li ñëw dañ la doon ñeewantal ndax it fi mu président yéegaloon baar bi mais li tax tiituñu woon xam nañ sa engagement mais également xamoon nañ ne président dina la accompagner te président nag accompagner na la ndax lépp loo soxla woon ci moyen lépp loo mébatoon jàppale na la ci et loolu important moo tax le peuple sénégalais dañu war a xam ni dañu am chance am président laat boo xam ni dafa attentif dafa ambitieux dafa bëgg réew mi dafa bëgg lu baax te loolu soo ko amee ci njiit am ko ci sa kilifa sa xel dafa war a dal kon ñun xam nañu fi nga xam ni fi lañ ñëw mais également xam nañ ci ne suñu ginnaaw ki nekk suñu ginnaaw suñu ginnaaw mooy suñu dëgër laay ki nekk suñu ginnaaw moo doon dëgër laayu Matar ki nekk suñu ginnaaw mooy dëgër laayu Sénégal mooy ndëgër laayu sportif yi muy son excellence le président la kon suñu amee lu mel noonu suñu xel na daal kon damaa bëgg dalal xel yëpp mhm. beneen bi Matar sera à nos côtés kon lu ñuy tiit kon tiit amu fi kon jaaxle amu fii kon xel yëpp war a dal ñun ñëpp rek comme ni ma wax ñun ñëpp rek. ah <laughs> moo tax délégué na directeur de cabinet pour Orléans donc déjà kon mu ngi li ma waxoon rek mu ngi ci accompagnement bi mu ngi ci conseil bi ba tax na kon lépp loo xam ni lépp loo xam ni ministre Matar Ba sumboon na ko fii foofu lañuy ñuy teg suñu tànk. foofu la ñuy tàmbalee continuer ak moom ci ay conseil ak accompagnement ak vision président de la République li nga xam ni bëgg na ko bi ci discipline yëpp ñu mën ko am kon daal li président li président di wax slogan bi mu doon wax mu ñu continuer di manko di joxante loxo dem jëli ndam li yàlla na ko yàlla dogal may sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum. bravo. dañu génn Seydina respect. absolument respect waay merci beaucoup. ban la ñu à la gerte tey. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service. Monsieur le président du comité olympique et sportif sénégalais. Cher grand frère, cher ami, cher coach, cher encadreur. Représentant le président Mamoudou Ndiaye, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations et groupements sportifs, Mesdames et Messieurs les acteurs du monde sportif sénégalais, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis de la presse sportive, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu le Clément et prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prier pour mes défunts parents, comme l'a dit le ministre sortant, mais également solliciter du Seigneur pour que cette mission qui est confiée et pour laquelle nous sollicitons son accompagnement. À l'entente de mon propos, après ces salutations, je voudrais remercier le chef de l'État, hmm. son Excellence Macky pour cette confiance renouvelée du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Nous voilà, voilà aujourd'hui en charge des où nous devrons également mettre en œuvre la vision de la politique sportive impulsée par le président de la République et qui nous a valu beaucoup de succès. Certes, nous avons connu des, campagnes moins fructueuses, mais nos athlètes, toujours drapés des manteaux de Djom, de Ngor, de Foule et de Faïda, ont toujours su se relever pour revenir encore beaucoup plus fort. Et cela n'aurait pu se réaliser si le peuple sénégalais, cet amoureux du sport en général, n'avait pas été là pour pousser encore et encore nos héros, ces vaillants fils et dignes ambassadeurs qui ont cette ambition et cette envie inextinguible de faire briller l'étoile sénégalaise sur les firmaments du sport mondial. Mon message aujourd'hui ne saurait être qu'une invite renouvelée pour que tous, comme un seul homme, derrière le premier supporter de tous les sports, en l'occurrence son Excellence, Macky Sall, président de la République, nous continuions à soutenir tous nos lions de toutes les disciplines pour de belles victoires à l'honneur de tous les Sénégalais. Mesdames et Avant le clore mon propos, je voudrais féliciter mon grand frère et ami. Et j'ai dit bien grand frère, et ami. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis avec Matar. Plus de 20 ans. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué tout le temps, c'est sa disponibilité et sa générosité. Et son ouverture d'esprit. Donc, c'est un grand frère c'est un ami aussi et sa courtoisie sa générosité nous a toujours marqué donc Matar monsieur le ministre oh. merci pour cet engagement républicain mais également cet engagement politique renouvelé derrière le chef de l'État tout à l'heure vous avez été d'une générosité qu'on ne peut même plus qualifier en termes de conseil en hmm. termes d'engagement en termes d'accompagnement. Toute ma gratitude. En, en tout cas, pour dire simplement que, Monsieur le ministre, pour tout ce que vous avez fait pour le sport sénégalais wolof Njaay nag day wax ni ku la jiitu ci néeg ba mën laa tegtal fooy teg say tànk kon je voudrais demander au ministre Matar Ba d'accepter d'être l'invité d'honneur de la délégation, délégation sénégalaise à la Coupe du monde de football Qatar 2022. Nos chambres seront côte à côte. Monsieur le ministre xam nga Mais également, je voudrais lui demander même de nous représenter au match amical Sénégal-Bolivie à Orléans pour le 24 septembre prochain. Pour dire, monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, nous allons continuer à cheminer ensemble. Nous allons continuer à travailler ensemble. Nous allons continuer à collaborer ensemble. vous serez mon premier collaborateur, mon premier conseil. On est très en outre, en outre, je puis vous rassurer et assurer que je serai le ministre de tous les sports. Je serai le supporter de toutes les disciplines. Le chantier sera certes vaste, mais tous ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dresseront devant nous. Depuis l'annonce de ma nomination au poste de ministre des Sports, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai noté et j'ai compris. Que nous voulons tous la réussite de notre sport. les réformes entamées par mon prédécesseur, mon grand frère, dans ce département seront poursuivies. Les infrastructures seront renforcées. Le consensus sera mon credo. nañu continuer di manko wuti ndam li comme ni ko président de la république bëggee.